يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ۖ institut daarul iman di yëngatu ci njàngaleem alxuraan mu sell mi ñu ngi ko sanc ci atum 1997 ci ndakaaru ak ñeenti élève ki ko sanc nag di docteur Mohamedou Abiboulaye Sy ku ñu ràññee xamxamam ci wàllu njàngale di wàllu science de l'éducation ak Saïda Abibatu Acce ci teewaayu dem si yàlla ji El Hadji Ibrahima Ndiaye Dia nekkoon premier parent d'élève ba yàlla na ko sunu borom bi yërëm teg ci nag ki ñuy wax El Hadji Mahmoud Demba Thiam l'institution Darul Iman et le développement personnel di daara ju tegu ci yoonu yokkute ñu ngi ko duppee dëkk bi ñu naan Médine fala la Mohamed si jàngee def na fa juróom-ñaari at gannaaw ba wey juróom wu góor Thierno Mohamed Thierno Hamid si ca Jatar ak Thierno Cheikh kan ak Thierno Mohamed Cheikh kan ubbee xol bi ci alxuraan ba noppi ca Galoya lii lépp nag laata mu génne ci institut des études coraniques bi ci Mauritanie. ana lan moo tax institution bi taxaw institution bi nag lii ko tax a mooy jàngaleem alxuraan mu sell mi jàngale diine jàngale àdduna ak tàggat xale yi ngir ëllëg ñu mën a nekk ay royukaay ci diine di jariñ seen réew ci kàllamay arabe français ak anglais institution bi nag am na reconnaissance maanaam état bi reconnaître ne war naa mën a taxaw jàngale nii mu ko bëggee reconnaissance boobu nag ministère de l'éducation moo ko jox ci numéro bii 48 01 ak bu ministère de l'intérieur ci numéro bi 031 50 am na itam beneen agrément boo xamante ne bi agrément ONG ci numéro 03 15 mënees naa ràññee institution bi ci nataal bi maanaam logo ni ko nasaraan tuddee muy ñaari loxo yu yëkkati benn téere bi ñu bind gëm-gëm ak xam-xam ci kaw nataalu suuf si di tekki àdduna wërngal këpp ak i couleur Nations Unies pencum xeet yi sunu bàkk wala slogan bi mooy yàlla yëkkati na kulli baani aadama bu gëm alxuraan ak xam-xam te di ko jàngale notre vision maanaam sunu gis-gis njiitu ci lépp luy tàggat doom aadama ci jikko ak jëf ju baax ngir soppi doxalin wu dëppawul ak yokkute koom-koomu askan wi wala bu réew mi notre mission maanaam li ñu sasoo mooy nekk daara ju mag ju ñu ràññee ci njàngalem xam-xam tey nafar jikko yu set ak yu sell ni ko alxuraan ak sunna santaane yu dëppoo nag ak jamono. offre pédagogique ak cycle maanaam lañ leen fay jàngale ak ci yan xeetu classe. benn am na programme bu ñuy jàngale taarim alxuraan bu sel bi ak méthode yu bees yi ñu jàngale franco arabe jëm ci préscolaire secondaire waaye soxal itam ñi nga xamante ne dañoo bindu ci internat maanaam ña fa dëkk. ñaar am na programme franco-arabe bu ministère de l'éducation nationale pour tout tànke yi ba ci xale yi nekk secondaire pour ñii bindu ci régime externat maanaam ñi nga xamante ni dëkkuñu ca l'école ba ñett am nañ itam beneen programme tari alxuraan mémorisation du saint coran ak bu njàngaleem diine bu méngoog programme bu ministère de l'éducation nationale pour classe yépp li ko tàmbale préscolaire élémentaire moyen ba jëm secondaire série L ak S sunu makaan maanaam sunu siège ak bërëb yu ñuy jàngalee maanaam sunuy daara yi siège u daarul imaan mi ngi nekk Sicap Mbao cité daarul imaan foofa la direction général bi nekk amal nañ fa ñeenti centre maanaam ñeenti daara sunu yeneen institut yi ñu ngi nekk ci yeneen i bërëb institut daarul imaan professeur Iba Der Thiam ca Zac Mbao institut daarul imaan bu Almadi 2 ay góor kese fa nekk institut darul iman centre banatul fadila ca almadi 2 ay jigéen ke safa nekk institut darul iman centre d'excellence ahmadou abdoul sall ci sikap kër massar institut darul iman thiaroye azur institut darul iman ca tareji à podor institut darul iman centre thierno mohamed thierno hamid si cité comico ak centre d'excellence bu bees bi ñu fas yéeni tijji ci atum 2022 2023 ci ndakaaru déwén ak jàmm ci wàllu réalisation maanaam li ñu jot a amal ci liggéey taxawal nañu benn kuréelu jàngalekat bu xarañ ñi ci ëpp doole ñi ngi leen tàggate ci école de formation yu mag a mag yi tàggat nañ lu ëpp junni ak ñaari téeméeri ndaw yu mokkal alxuraan tàggat nañu juróomi téeméeri élèves yu nekk ci daara yu mag yi maanaam ci université yi di wéyal seeni njàng rataxal nañu bu baax diggante institution bi ak service yi banqaasewoo ci ministère bi yor njàngale mi noo ngi gunge lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay ndaw yu jàng ci sunu centre yi nekk tey ay cadre ci réew mi cadre yu mag tey dundal ak yëkkati diine lislaam fépp ñu nekk ci réew mi lëkkaloo nañu ak université yi nekk ci réew mi ak bitim réew ngir yombalal lépp ndong yi bawoo ci sunu centre yi te bëgg a seen njàng fii ci réew mi wala ci bitim réew sunu centre def nañ ko moomeelu askan wi ngir seen yokkute ci jaamu yàlla te jubluwuñ ci lenn lu dul sàkku ngërëmul sunu boroom liggéey bi ñu amal nii ci institut daarul imaan yokkute la ci xëyu ndaw ñi lii ko firndaal mooy téeméer ak juróom-ñaar fukki liggéeykat yi fay xëy di gont di ay góor ak jigéen ci institution daarul imaan dañuy jëfandikoo xarala yu bees yi ci njàngale mi ak ci biir administration bi salle informatique bi ak bibliothèque numérique bi wane na ko institution daarul imaan moo tàggat xale bii di Mohamed Al Moujtaba Diallo di xale bi raw ci jongante taari alxuraan ca Malaisie ak ca Tanzanie te réew yu bari ci àdduna bi bokkoon ci jongante boobule muy woon ndamu Sénégal ak Afrique yépp président Macky Sall moom ci boppam teeru ko dalal ko gërëm ko institution daarul imaan ràññee nañu ko ci dox ay tànku jàmm ay tànku yéene ay tànku mbaax diggante kilifa yi mu séqal gox ba daarul imaan tabax naagum lu toll ci fanweeri jàkk ak juma ci réew mi liggéey bu rafet bii nga xamante ni institution daarul imaan def na ko ci dëkk ba tax na ba waa dëkk bi yépp mànkoo tënku ci benn baat ne dañu tuddee cité bi cité daarul imaan ki teewaayu monsieur le maire institution bi ràññee nañ ko itam ci ay ndimbal yu mu faral di baaxee doom aadama yi ci wàllu dund ak xaru tabaski ak i tàndarma yu ñu jagleel jàkk yi ak jumaa yi jamonoy koor ànd ci nag ak ambassade bu Arabie Saoudite daara ji faral na lu muy yëngatu ci wàllu set ak setal ak jëmbat ay garab ci place publique yi yàggul rekk jamono yee jëmbatoon na lu toll ci ñaari téeméeri garab ci bërëb yooyu faral na itam di gas ay teen ak mini forage ci dëkk yi nga xamante ni dañoo soxla ndox lool. dinay baaxe itam lu bari sunu mbokk yi nekk ci banlieue bi te seen loxo jotul seen gannaaw ay fourniture scolaire ay tissus ay yére ak yeneen ak yeneen. taxawal na itam benn kuréel buy saytu lépp lu yittewoo social ca jumaa ja aljuma bu nekk bu ñu jullee bu pare. gannaaw loolu xale yi nekk ci centre yi de seen wéyjur néew doole lool institution daarul imaan dina leen dimbali bu baax at mu jot sunu yéene mooy fexe ba région yu nekk ci Sénégal ak département yépp bu ci nekk am centre daarul imaan bu mag a mag dina fàttali ni siège institution bi mi ngi nekk Sicap Mbao cité Darul Iman face LGI parcelle numéro 105 contact 33 854 80 80 wala 78 120 42 42 wala 77 644 23 44 email eduman 2020 arobase gmail point com wala drh abc arobase gmail point com site web www.daruliman point net